Sidi Ganjiri Demato Euh, salaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi fi taxaw ak tey jaañ Modou muy président organisation bu RERA Fekema 2018 euh, Diagne nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum waa Ladoum Toufi salaamaaleykum Seydina Aline waaw ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni rek ñu ngi si cëppaandaw li comme ni nga ko gisee rek waaw di fas yéene waxtaan yéen tuuti rek si li ngeen xam moom ngeen gis fii. macha allah Diagne ñu gis loo xam ne tey jafe na ñu gis ko ci foire parce que foire bu nekk tey mun nañ Ladoum TV dem na fa Ladoum TV filmé na ko mais ñu gis tey. loo xam ne mën nañu c'est une première ñu gis ko ci foire muy ay loo yoo xam ne ay sac repas ay tel écran plat ay garab yoo xam ne pour xar yi la lépp ñu destiné ko xar yi nga xam tey ñoo qualifié ci concours bi euh, Diagne lan moo waral loolu tey. waaw Seydina Alioune comme ni nga ko waxee léegi rek mosoo ko gis si foire euh, tey dañ ko waxoon xëy nañ am nañu ko gëm am nañu ko gëmul te yàlla may na ñu fekkee ko si euh, faaru fekke ma bi yéen ci teg seen bët. loo yaa ngi nii nga xamante ni fas nañ ko jox les vainqueurs di wax ni rek c'est élevage la quoi ndax tey jii nii élevage dafa war a am beneen tuus boo xamante ni tuus bu indi beneen innovation lay doon ndax tey jii nii xar mi gañe dem këram indi lu dul këyit sa waa kër yaakaar naa dañu ne benn moment boo xam dañu leen jàpp ñu woyadi mais tey imaginer maal bu gañe yóbbu télévision écran plat bi dem këram dem si boxu xar fi mu nekk def taf ko fa ah di seetaan télé wala di seetaan leneen ñu ne fii si télé bi nga ne xar yee ko gañe loolu beneen affaire lay def maanaam daal loolu lañ si inspiré moo tax ñu def loolu di wax ni rek affaire bi daal ñaan yàlla rek euh, mu jëm kanam ku def fois rek gis loo xamante ni lu raw lii ngay gis seen Alioune. Euh, macha allah Diagne xam naa doguñu la waaye dañuy des foofu ba léegi est ce que mun nañu xam tey yan pexe wala yan moyen euh, ngeen def tey ba nga xam ni ngeen décroché lii ku ko xam gis lii xam ne lii tamit du ay caaxaan vraiment sponsor bu nekk ñëw na fi gis nañ fi waa Sedima gis fi waa Avicenne gis fi waa Grand Moulin gis fi waa NMA ak yeneen sponsor tey jaañ nan ngeen def yan pexe ngeen def tey ba décroché lii. waaw seen Alioune question boobu dinaa sawar xam nga seen Alioune damay wax ni euh, association bu nekk rek ñi koy jiite day refléter si association boobu yàlla suturaal nañu association bi ñi ko jiite am nañu expérience élevage moo war a tey jii nii euh, organisation bi bett nañ nit ñi mais man bettu ma en tant que président d' organisation beneen bi mooy dañoo am ay partenaires yoo xam dañu dimbali ku si mel ni Balla Gaye Bergerie Baye Cheikh jàppal nañu bu baax a baax a baax a baax si loo yi nga xamante ni mooy loo yi nga fi gis ak yeneen euh, laboratoire lu mel ni Sosodel Vetopart yooyu yëpp jàppale nañ ci li nga xamante ni mooy NMA Sédiment Grand Moulin ah Avicenne dañ ñoo jàppale ba nga amul kenn benn minuterie bu des Riverdee ah yëpp ñëw nañ ba jàppale ñu jox ñu ay loo yoo xamante ni ñoom lañ nar a séddale ñi nga xamante ni te innovation yi mooy seen alune cinq prime la ñuy la ñuy primé cinquième day am dara quatrième bi am dara trois premiers yi ku nekk am dara waaw donc loolu loo xamante ni muy innovation boo xamante ni faaru fekkee ma bi moo ko def ba ñëpp teg nañ seen bët incha allah si kanam tuuti dinañ def délibération yi que le meilleur gagne seen Aline. Diagne avant ñuy tàggatoo euh, première édition fekkee ma 2018 ñu gis innovation bu doy waar bi tey lan ngeen réserver éleveurs yi euh, yeneen yeneen fekke ma yi di ñëw. waaw seen Aline di ñaan yàlla rek fekkee ko di wax nii rek euh, élevage bi nit ñi bu ñu bokkee ndey bokk bàyyi rek léppay baax mais détail rek day yàq yal nañu yàlla musal si détail yal nañu yàlla musal kuy liggéey. nga koy découragé loolu amul solo ngay nekk jeune bu nangoo liggéey nga nekk ci koo xam ne yaa ngi bokk si laa Ladoum conseil bokk si laa TV élevage rek ñor la lii nga gis ni xëy na yàlla mos teg loxoom mais man rek ak sama pexe mënu ma koo def yàlla mi nga xamante ni moo mën rek moo ko def waaw lépp dama koy delloowaat moom xam ne lépp lu si am manquement rek xam ne doomu aadama la mais lépp lu si réussir rek yàlla moo ko réussiral di leen gërëm di leen bu baax a baax Seydina Alioune merci beaucoup.